batolu Joola bu ma ci sax sori mais dafa baax mu leer man ak maître Aïssata Tall Sall maître euh, Moussa Félix Sow ak euh, maître Massokhna Kane ànd ak maître Fartois du barreau de Paris de plaider l'état du Sénégal dans l'affaire du bateau de Joola ñu waree ñibbi euh, la veille ñu ni suñuy valise am na boo xam ne yaayam mu ne ko na ma na ma seet si yaayam ne woon na sama xarit la bon du ma dugg ci détail yooyu la ñu nar ak la ñu def yëpp amul solo mais mosu leen ma dégg ma taxaw fi complot parce que la may def faj fajal ma ak bopp ba ñu demee comme ni ñu def Ousmane Sonko dañ ma ko dama toog ñoom Esther Tassal ni on est là alors bi ñu waxtaanee ba pare fekk xale bi ñëw na ba nuyu si ma yaa ne ko na ma nuyu si man ma ñëwee concierge war a jël valise yi il fallait ma yóbbu ma ànd ak moom sama chambre xale bi ne man la diw doomu diw bon yàlla def na capverdien la xees na weex na foogoon na xëy na dina mën a am dara ci man comme li ñu wut xëy na waaye xëy na saa waaye xëy na Ousmane dañ ko piégé yàlla xam parce que homme politique da ngay moytu na man bu ma bëggoon def lam lam bëggoo la ma doon def loo ñëw rek jaaxaan sama la tëdd ak weexaayam yàlla yàlla may ma fulaak fayda ba defuma ci dara naka bu génn néeg ba muy dem ma yëkkati sama deux cent euros billet bu jaune fi nga xamee ne complot la billet bu jaune boobu ak koo xam sama générosité de tag ma sama bopp de xale ku di yaayam nekk Sénégal sonn temps yooyu ne ma doomam day jàng am na am na master ah, am na 23 ans master 2 lay def léegi année boobu léegi ñu koy titré ne dama yeg ci xale am mineur en France man ma violé mineur France Lamine Diack ëpp ma de France DSK ëpp ma doole France viol c'est criminel en France coup d'office la avant Sénégal ñu di ma bàyyi ma ñibbi si deux jours après mosuma dugg prison France mais ma wax lu tax dugguma prison France damaa deful dara mais damaa wujji nag bi ma fekkee ci guddi gi noonu bi xale bi demee ma ma mu dem mu dem gis na ma génn ay liaas yu bëri nag ay cinq cent euros yu bëri wax dama dafa généré dem Sénégal wax di jox nañu lu bëri ci ay ay ay millions en Europe ñoom défendre Sénégal xam nga mais ma yëkkati benn bii rek de boobu ñu ñëw pourcentage ba après ànd ak naka mu génn rek ñaari xale jigéen ñëw bon bi ñëwee fëgg sa nekk ma ne bon wàcc parce que la taxoon ma yëg ak kële ñaari valise yoo yor la lan la ñibbi si Dakar dégg nga de daal di mu ànd ak ñoom ak concierge ak moom yegg si toog mu daal toog ñu ñëwee rek toog tëdd faale ma mais benn yeneen ñaar yeneen ñaar yu benn algérienne ak benn xaw ma ñoo ne mag ma toog yow bu ko doxaan xale bu jigéen bi ma ne ko quest ma ne ñoom ba ci baar ñu ne on va à la police ñu dem police ba woon may tëdd di nelaw rek ñu fëgg ma ay bëgg boo ko yéenlu di sama porte gis gis ay policier français ñu ñëw taxaw pardon oui c'est monsieur vous voulez nous suivre ou bien vous attendez demain matin ça dépend de vous non non nous on a élection présidentielle dans trois jours au Sénégal c'était le deuxième tour a Abdoulaye Wade et Macky je doy si ci ay complot yu bëri bu ma ca dugg mais objectivité lay wax man de muy denc guddi gi bi ma ñëwee toog ma dangaa bëgg a xamal tey tey xam ñu def ca stade foofu ci tàng tàng bi ñu ne dañ lay laaj nga bëgg mais boo bëggul kii en infraction da nga war a bëgg parce que looy ragal ñu demee ma test ADN ci tàng tàng bi dafa ko test bi ñu def test yi rek. bi ma testé ba pare ñu ne ko yow mu ne noo man daal laalu ma wax yàlla daal laaj na sama pooj ma cuisse gauche ba laal raay daal sama pooj gauche loolu dina ma ci daj France gars wax leen loolu mooy viol man la loolu amul man la man man ne xoolal caméra yi caméra bi bi muy dem moom moo dem da ko joxee deux mu dem ba ci bunt bi dafa dumóoyu waat ñu ñu accolade ma ni ma leer na nañ leer na nañ mais après yi ci am yëpp xam naa ko ak ni mu demee li nga wax li nga wax mënu ma violé li mu wax dafa koy mineur la ba pare tëjuñu ma France bàyyi may taxawaalu waaw avant sama dernière question France amul sëriñ amul fi intervenir amul sax ñu ne xalif bee oote wala kilifa diwoo oote grand sëriñ oote wala diwoo oote amul France mais léegi dañ ñuy ñëwaat waa jërëjëf dama bëggoon a xamal waa mooy équipe balance. ñu man nag dama bëggoon foofu juste benn mot. saway bu bëggoon réewam dëgg dëgg dëgg. ñoom ñu ne ay patriote lañ. man du ma sacrifier. il pas jàpp nañ ñeent fukki ak benn xaw ma. ñu sonn foofu dañu añ doy reer. di leen toroxal. ndax moom ndax bëgg ko xëy na xër nañ ci moom. comme bokk aram. comme euh, benn la den ay dee pour ñoom li tax kenn xamul lu tax yàlla mooy def loolu nit ñoo xam ne wéruñu ak ñu bëgg nit ba dof ci. nga profité ci loolu nag sacrifier say sa askan ndax ndax yow bëgguloo dem wujji mais yow boo wujjee di def test ADN allah kuli ali moom am na ay médecin mën na ànd ak benn médecin bu ñu def mu xool résultat yi la xool ba sam nee neen mun leen man je suis un homme politique dama ànd ak un de mon parti dégg nga médecin xool ñu gis résultat yi boo bu róowul yaa xëy mu ñibbi war këram immédiatement mu naroo nag ah malade dépôt mënul ñàkk te tax dem bu ma yeggee ñu malade dépôt ma ah moom moo xam lu tax léegi nag il faut que ça soit clair il y a pas d'intouchable dans ce pays là yéexal jëli nag mën na am mais léegi bu dëkk Ousmane Sonko kenn mënu faa dugg daa ngi jëlaat si nga fa demoon tey da dugg na est-ce que ñoom mu ne woon tere kon bu neexoon tey euh, état bi wala gendarmerie mënoon jël tey même jël mënoon nañ jël Sonko yóbbu ko ndax bi leen tasaaree ba pare ñeemuñ nanguñ may may may ñu kenn mu jege bu dëkk Ousmane Sonko ñu leen di dëkk bi te est ce que ñoom ñooñu mën nañ tere am nañ doole bala may dégg ñu xataraay da ngan na lu naan wuu suñu toll wax lu leer loo xam ne arrangé wul Ousmane Sonko danga maam dafa nànk dama ni ngan na ngan li fi amoon bu dëkk Sonko ci sama le matin ñu wane drapeau Pastef ñëpp ko ñëpp ko gis drapeau Pastef bi gis nañ ñu naan du waa Pastef sax ay Sénégalais ñu la bouclier humain waaw ndax bi policiers yi ñëwee dëggantaan ñaay ñu dina sànni ay xeer te ngeen seen bët ñooy indi renfort ku daw policiers yi dawal ñoom ñoom ñëpp fàq bàyyi fi Ousmane Sonko moom kenn bu neexul kon gendarmerie bi ñu ko convoqué jour boobu bi ñu bi ñu dàqee manifestant yi ba pare lu leen tere woon jàpp Ousmane Sonko yóbbu bu leen neexoon ñu def ko mais comme xëy na. man xaw ma nu tax bu doon mën dama ko jàpp bu doon mën naa comment comment naa caa waaw sama dernière question rek ñu tëj chapitre boobu mu ngi jëm ci dénonciation calomnieuse maanaam nga nga tuumal nit nga nga tuumal nit ñu dem ba si biir xam ne da nga ko non mais avant loolu avant loolu li nga wax sànq sax dañ koy mënuñu tëb mënuñu tëb seulement kon tëb nañu affaire soog c'est fini dénonciation calomnieuse non non maître non question la rek question la rek waaw question question la rek on y ah, va waaw yow sax yow sax dama nekk ak yow en face parce que fii mooy équipe balance fii moom nit du fi ñëw wax lu ko neex ñun si suñuy investigation. man du wax lu ma neex non. waaw xaaral xaaral même waaw may ma ma daane. non non non waaye nga may ma daane rek. du wax lu ma neex. yow laa àndal d'accord. dama ne ñun ñun fii équipe balance si suñuy investigation xam nga réewum France sori na. li nga wax yëpp dama koy dëggal ne. maa ngeex euh, décision cour d'appel bu Paris moom laa téye nii pour wala ne ñun invité wuñu fii kenn ci ngelaw li dañuy def ay investigation yu xóot a xóot bi ngay wax yëpp maa ngi liir fii mu lii Paris la jógee muy décision ñoo ko lijjën si suñuy investigation confirmé naa waaw amu fi amu fi confirmé naa dëgg-dëgg li nga li nga li nga wax léegi tontul ci dernière question boobu ñu xoos déclaration nu mu tudd dénonciation calamnieuse lan la si loi bi wax ak yan daan lañ si est-ce que du ma reformuler maanaam maanaam bu ma ko doon reformuler dama naan bu buñ demee ba seetal Sonko est-ce que am na droit retourner contre ki ko accusé woon en fait ñu xuus ci responsabilité en matière de viol ak sur le flagrant délit ñu leeral ko woon leer. ok dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw de toute façon parce que am na ay questions. interpellées taxaw di xaar professeur a ngi kii. waaw waaw d' accord d' accord major jëlaguñ kàddu également. ci wàllu non non